ami internetu Medina TV HD nuyu na leen bu baax a baax ku gis fii suñu ginnaaw fi ñu nekk nii muy ci boulevard général de Gaulle fii nag gis nañu li fi xew fan yëpp passé mu bëri loolu ay euh, dégâts matériels yoo xam ne am na fi boutique yi nga xam ne yàq nañ ko fii tey loolu moo tax na Medina TV HD génn ànd ak yéen dugg ñi nga xam ne nañ leen yàqale ak riverains yi nga xam ne tamit ñoo dëkk fi nga xam ne ci watu boulevard général de Gaulle bi la su ko defee dañuy ànd ci biir nag euh, ñu laaj leen ñoom euh, yàqu-yàq yi nu mu bëree ak ñoom ni ko gisee ak tey ban jàngat lañ ci am. nee na ma dam Balde. ah xanaa sonn rek ba ba mu amee ba tey tooguñu nelawuñu ñii ñi ngi bale suba ñii ñi ngi bale guddi ñii ñi ngi bale ngoon ñoo ci kawam rek di góor góor di dóor waar. yàqu-yàqu yi noo ngeen ko gisee bëri. waaw ah, yi moom bëri na yàqu yi moom bëri na torop macha allah bëri na. gis nañ seen pôle yeeg yëpp dañ koo taal. ah waaw xam nga xale yi moom suñuy manifester ñoom lu ñu xool lu ñu war a taal ak lu ñu war a taal lu ñu jot rek dañuy taal xanaa yàqu-yàqu yeeg xale yu dee yeeg yooyu daal naqari nañ torop moom wax dëgg yàlla bakkan yu yi moom metti nañ torop ñu sañoon daal comme nuñ ko defee démb rek noonu lañ ko doon defee nga xam ni benn coow du am benn yàqu-yàqu du am. ñun fi ñu dëkk nii lacrymogène yi sax da doon dugg suñu kër xale yi dañ leen jee di leen mujjee rawale pour sax xale yi surtout ñun ñoo amoon problème vraiment policiers yi fi lañ nekk face à face ak booy yi xam nga ñun comme ñu ñoo dëkk ci koñ yi vraiment tiir yi métti na trop vraiment métti woon na trop vraiment démb c'était waxuma démb sax ñetti fan yu passé yëlee no a ah, démb moom vraiment c'était très dur très dur vraiment mais sant yàlla kom vraiment defe ndox mu sedd mujj na ci eh, am ba léegi vraiment gis nañ daal tey am na jàmm. mais c'est à condamner ah oui c'est à condamner Sénégal dañ ko liggéey ba Sonko fekk ko fi dañ ko liggéey ba Macky nekk fi président il n'en est pas question qu'on laisse passer certaines chose lii fi xew keroog li booy yi def nii moi je le condamne fermement nag parce que yàq moom kenn waru ko cautionner si dara je pense que tey il est de mon devoir de lancer un appel à tous les responsables politiques ñu bañ di engagé peuple bi si ay yàq loo moomul doo ko yàq loo moomul doo ko jël muy fii muy Chine ak fépp yam il faut que avance parce que kuy woote démocratie di woote avancement da ngay njëkk a exemple exemple mooy un acquis c'est à préserver doo fekk lu ñu liggéey ba pare garab bu ñu saxal ba pare nga dagg ko au nom de quoi. ñëpp ko mettitlu dégâts yi moom du ñu ne centenaire Gibraltar Médina rek la mais mi ngi partout dans Dakar mais ñun subir nañ ko mais sant yàlla am nañ ci benn protection. donc yàqu-yàqu yi tamit metti na. ndax lii ñu yàq ni suñu alal la ëllëg ñun ñooy dem ci ñun rek suñuy papa ak ñun ñii ñun jeunesse bi ci ñun lañ koy dagaat donc bu demeetee nii ay total ak Auchan yi loolu yëpp réew mi dañ sonn xam nga man nit ñaa ngi sàcc métti lu ma sàcc gi mais man du ko def mais nekk na loo xamante ni tamit dinaa ko naqarlu ndax nit man tey ji damay imaginer bu ma yoree sama place ñëw daaji ko jël li ci nekk day metti est-ce que je pense que ni man mii lii ma yor nii sama capital la wóorul te mun na nekk sama Ndakaaru ñu jël ko du mujj fenn.